diggante Ecotra ak Ageroute euh, euh, ma ne loolu du li ñu indi woon fii ci dëkk bi euh, li ñu indi woon ci dëkk bi wax naa ko léegi waaye insisté ngeen insisté moo tax ma ma ciy wax muy Ablaye Sylla di PDG wu Ecotra li mu gëm mooy que réew mi li koy tabax doomu réew mi la war a doon moo tax euh, li mu am lépp gëm réew mi gëm justice réew mi gëm na ñoo war a defar réew mi moo tax mu def investissement yooyu tool ni jël juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar jënd ko matériel fii ci réew mi di liggéey loolu mat juróom-ñetti téeméeri nit di fay lu mat juróom téeméeri million salaire euh, gëm ne loolu Euh, doomu Sénégal war na ko mën a def ci réewum Sénégal pour suqali réew mi bokk ci ñi koy tabax euh, loolu nag euh, bu ñu bu amee li koy gën a yombal mooy ah nguur gi yombal entrepreneur sénégalais yi ak entreprise sénégalaise yi nu ñu jotee ci liggéey bi nga xamante ne moo koy joxe bu ñu ko jotee mu jàppale leen ci bu ñu liggéey ba pare mu fay leen ci nu mu gën a bare. loolu moo tax euh, ñun laaju ñu ku ñu ku ñu favoriser ku ñu jàppale la ñu laaj dañu ñu bokk ci appel d'offre yi mooy bu ñu ubbee ay liggéey na ku bëgg a liggéey yaakaar na mën nga ko na ñëw bokk ñun dinañ ci bokk bu ñu yaakaaree na mën nañ ko euh, bu ñu ko defee bu fekkee yàlla def na gagné nañu ñu bàyyi ñu liggéey ko bu ko keneen gagné ñu bàyyi mu liggéey ko waaye dafa am ay jafe-jafe yu am yu mel ni Euh, liggéey boobu ñuy wax ci boucle de Kalounay Casamance muy appel d'offre boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko lancé ba ñu ko defee ba pare euh, Ecotra gagné liggéey bi ci quatorze milliards euh, Ageroute yónni ko banque africaine de développement mi yore financement bi banque africain de développement bañ loolu ñu ñu tànn Ecotra neen nañ ko jox beneen entreprise muy entreprise chinoise ci seize milliards mu mu xamante ne ñooñu gën nañoo seer Ecotra lu ëpp ñaari milliards euh, loolu jaaxal ñu te li ñu jiital na moo tax duñ ñu ko jox ànduñu ci ak ñoom ñu yóbbu leen ci yoon euh, yoon bi dem ba ci Cour suprême Cour suprême ba mu dogalee nee na euh, li ñu jàpp na moo tax duñu jox liggéey bi Ecotra loolu teguwul si yoon méngoowul ak li am et que Ecotra euh, am na kattan ak man-man defar liggéey bi donc loolu ngeen décidé woon na ngeen ko dindi commencé waat liggéey xoolaat ñi ñi ñuy jox liggéey bi décision boobu Cour suprême jël nguur gi daf ko doxalewul agirul doxalewu ko ndax entreprise chinoise ba nga xamante ne moom lañ joxoon liggéey bi te Cour suprême nee na waruñu ko jox euh, ñooña ba léegi ñu ngi leen di bàyyi ñu continuer liggéey bi loolu nekk euh, loo xamante ne lu lu ñu xaw a jaaxal la ndax réew boo ci nekkee banqaas bi ci gën a am solo mooy banqaasu yoon banqaas bi gën a kawee ci yoon mooy cour suprême bu dogalee li nga xamante ne mooy li mooy ko nguur gi jëfee li nga xamante ne cour suprême dogal na ko waaw mooy li nga xamante ne moom la ñu xalaat ci ci mbir mi di wax di woo ñi nga xamante ne ñoo yore ŋànk réew mi jëlee jëme si kaw borom réew mi loolu ñu seetaat ko bu baax ba euh, décision de justice boobu ñu man ko teg ci yoon waaye jafe-jafe yeneen yi nga xamante ne mooy am mooy dañu dugg ci yeneen i liggéey di ko gagné ñu continuer dañu ñu indil ay jafe-jafe bañ ñu ko jox nekk na ci liggéey bi jógee euh, euh, ci ci Casamance mu mu muy liggéey boo xamante ne ñu ci lancé appel d'offre yu yu bëri ñetti appel d'offre muy Sénoba jaar Ziguinchor dem ba Guinée Bissau loo bu njëkk bi Ecotra moo ko gañe woon ñun ñu ngi nii ci nekk ci yoonu nangu ko fi ñu jaar ak ñun ci boucle de Kalounayes foofu lu ñu bëgg jaaraat ak ñun ba jël liggéey bi jox ko beneen entreprise boo xamante ne bi li mu laaj moo gën a cher ñun ñun lu ñu laaj te te lii tax ñu bëgg ñu ko xañ tegul ci yoon. ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi yëglu lu mel ni waxtaan ak yéen euh, ñu ngi euh, waxtaan euh, pour que waa réew mi yëg li xew di sàkku ñii ngànk réew mi eh, eh, ki ci jiitu di borom réew mi ñu xoolaat mbir yooyu eh, jàppale entreprise sénégalaise yi nga xamante ni ñu ngi góorgóorlu di jël seen alal seen man man di ko def ci réew mi pour tabax réew mi di jàppale entrepreneur sénégalais yi nga xamante ni dañoo bëgg ñëw liggéey réew mi ndax lii bu ñu ko bawul Euh, gis na entrepreneur jël na alalam jël na man-manam investir na lu bëri ñu di ko indil ay ay jafe-jafe pour mu am liggéey day tax yeneen doomu réew mi dootuñu ñeme te réew mi li ko war a tabax ci doomu réew mi la war a nekk loolu mooy li am solo donc tëm bu ñu defee liggéey ñu gunge leen la ñu liggéey ñu teel leen ko fay ndax kuy liggéey buñ la fayul doo mën dem ci liggéey bi te yooyu itam dañ koy rencontrer ci liggéey yi nga xamante ne ñu ngi koy def li ñuy ñaan nguur gi di ko ñaan borom réew mi mooy que ñu jàppale secteur privé sénégalais pour que la commande publique bi ñu mën ci man ci jot di ko liggéey ñu jàppale leen ñu liggéey que na mu gën a baaxee ndax entreprise Sénégal euh, gan yi fi nekk ñuy bàkk seen liggéey euh, bu ñu jëlee ay sénégalais def leen ci condition yu mel noonu daa ñu defar liggéey bu ko gën a rafet loolu lañu gëm. bu ñu ko xamoon dañ cee jubal euh, dindi ko. waaye mënuñu wax ne lii moo tax mbaa lee moo tax waaye ñun lu ñu jaaxal la ndax eh, Ecotra di Ablaye Sylla eh, amul xarma yàlla ak kenn ci réew mi deful kenn ci réew mi lu deful waxul kenn ci réew mi lu waxuwul deful lenn ci réew mi lu defuwul bu lu mel ni amee nag daf ñu jaaxal daf ñu jaaxal lool te xamuñu lu ko waral ñun nag liggéey réew mi moo ñor Ablaye Sylla jàpp ci ñuy defar réew mi moo ñoom Ablaye Sylla te loolu mu ngi ñaan yàlla yàlla jàppale ko si ba ëllëg buñ ñu xoolee réew mi gis mu jëm ci kanam ñu ne ñi ko tabaxoon Ablaye Sylla ci la bokk